Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal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 woo nañ leen dimanche bi nga xam ne moom la ñu dëgmale ngir nag ñu daal di tànn li nga xam ne mooy élection yi ministre bi ne moom lañ dénk kaaraange réew mi di ñooy waa Sénat ak force de défense yi ñoom lañ dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllum organiser élection yi yéen a na ñi nga xam ne ñooy bi ñoom nag dañoo njortu li nga xam ne mooy transfert d'électeur loole lu a nekk la wala ay njuuñ njaaj maanaam ay na xam ne moom la ñu dëgmale les élections locales yi sénégalais yi génn dem voter tranquillement maanaam que le meilleur yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy ñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñooy coalition Yewwi Askan Wi ñoom dañoo njort ne li nga xam ne mooy élection locale yi mën nañu ko luubal moo tax ñoo ngi dànkaa fu pouvoir bi yéen kaay gi di Le Soleil nee na matériel bi nga xam ne moom la ñuy voté diwaanu Thiès ak Diourbel jamono ji lépp yemb na yéen kaay gi di L'As ñu xëy fekk fa Mambay Niang Sénégal 2035 nee na ville bu Ndakaaru anam bi nga xam ne moom lañ ko yoree dara baaxu si yoroon wi nag jamono ji war nañu koo xoolaat bëri na ay erreur ay rëq-rëq yoo xam ne am na ci ni ñu yore Dakar te erreur yooyu ak rëq-rëq laa war a saaf saafara moom Mame Mbaye Niang ci journal bi daan nay fësal xam ne mooy ab programme am jëm ci wàllum territorialisation des politiques publiques nee na Ndakaaru jamono ji war nañu ko defaraat bam na boy mu nekk une ville prospère yéen kaay gi di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa ministre bi ñu dénk kaaraangi réew mi di Antoine Abdoulaye Diome moom nag ma ngi dànkaafu nee na élection yi maanaam bu gusee li nga xam ne mooy sabotage te képp koo xam ne def nga ko danañu ko diggaale ak ndax li nga xam ne mooy vote bi dañu ko war a lu toll si ñaar fukki junne ci ay ñoo xam ne recruté nañ leen maanaam ngir ñu saytu élection conditions yi yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa Abdoulaye Diouf na jamono ji Bokk Yaakaar a kaay gi de laas ñu xëy fekk ñu waxante maanaam nee na moom la ñuy votel yéen a kaay gi di Vox Populi xëy naan ñu Doudou mi nga xam ne moo nekkoon directeur campagne Benoît Samb bàyyi na na ji mer ba maara di tali nee na Doudou gëmul boppam du nit ku dégg du ku loyal Abdoulaye Baldé mi mu àndal sax gëmul tuddukaa yéene kaay gi de Les Échos xibaar naan ñu violence bi bëri na Cheikh Bakhoum daan na yàq musiba ak mbelengaana Madiop mi nga xam ne mooy maire sortant Grand Yoff nee na Madiop Diop jàngu la maanaam certificat amu ko su dee Barthélémy Dias mi laaj ville bu Ndakaaru bac sax amu ko yéene kaay gi di 24 ñu xëy fekk fa Pape mi nga xam ne ay jamono nekkoon na fi maire bu Ndakaaru moom Pape Diop boo ko gis-gis daan nay wax ne Ndakaaru li nga xam ne moom la mérito mooy grand investissement yi nga xam ne moom lañ ko xamee woon jamono jamo ko yoru jamono ji nag infrastructure moderne yoo xam ne moom la Dakar soxla te lii lépp am naa ci ab programme boo xam ne lu mën a saafara la moom Pape Diop ci biir bi na ma ko tuddee mooy Dakar sunu bokk moomeel yéen a kaay gi du l'Observateur réew mi quotidien Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu ca diwaanu Kër Massar dafa am kenn koo xam ne dafa dugg ci ak kër fekk fa ab xale ako pa taal xale ba taal ki nga xam ne mooy maamam ji jamono ji xale bi ma ngi ci diggante dund ak dee am na benn nervi boo xam ne teg nañu ko loxo yéen a kaay gi xëy diñu xibaar naan ñu Soyof Apex foofee nag dafa am benn maçon coffreur boo xam ne mujjee ñàkk bakkanam journal bi nee na machine bi mu yoroon maanaam si électrique bi la doon li nga xam ne mooy ay buntu njuumte am sa ba mu dagg li nga xam ne mooy waa yàllaam yi mujjee nag ñàkk bakkanam yéene kaay gi dee sat xëy ci nee na Algérie bi nga xam ne moo jëloon coupe d'Afrique bi éliminé nañ ko yéene kaay gi nee na ci huitième de finale yi nar naa neex ndax derby dina am diggante Guinée ak Gambie huitième de finale yi journal bi ne na choc bi ñëpp di xaara mooy Côte d'Ivoire Égypte waaye nag Nigéria Tunisie loolee tamit match du ko dax Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal